mbokki jullit yi mbokk yi ñuy teewlu ci waxtu wi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla jàmm ak salaam waaye di ko sàkku ci yéen di ñaan nag buur bi subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu fekkee weeru koor wi ba ci waxtu wi yàlla na ñu may ñu eggali ko ci alhamdulillahi rabbil alamin di ko ñaan ba tey moom subhanahu wa taala lépp luñ ko ci uh, jaamu yàlla na ñu ko nangul waaye luñ ko jaamulit balaa weeru koor wee ñëw ak bu weeru koor wi jeexee ba keroog ñu tasante ak moom lépp yàlla na ñu ko nangul mbokki jullit yi eh, tey nag di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor eh, ci Europe eh, ak li ko wër loolu mooy tekki ne tey la ñuy weer wi suñ ko gisee ëllëg insha allahu taala dañuy daal di war mu nekk korite nekk fan wi njëkk ci weeru kor yi muy weeru shawal bis boobu nag euh, bis bu xaraama woor la ma bu buñ weer wi ëllëg woor ko dafay daal di ndax yonent bi sallallahu alayhi wa moo wax ni dëkk bi nga nekk daal bu gisee weer wi wooral ànd ak ñoom bu gisaatee weer wi wari la ak ñoom waaye bu ñu wooree nga bañ a woor ñu wari nga bañ wori loolu génn ak topp la loolu ñàkk roy yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ak ñàkk dégg ay ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon daal nekk fii ci Italie bëgg di ànd ak woor waa Sénégal daganul dafa xaraam ci ab jullit waaye nekk Italie ba tey bëgg ànd eh, ak woor waa Sénégal daganul sa weer du weer waa Sénégal kon julliti Italie nga war a àndal woor ak ñoom bu dul lool rek jàdd nga sunnas yonente bi sallallahu alayhi wa ndax yàlla roy loola ma sàmba ak ma demba ma yàlla waxul ñu rey ma sàmba ak ma demba ki waxoon ñu rey ko kooku mooy sang bi di seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ni laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kon nag mbokk yi bu gisee weer wi daal tey jii ëllëg ñépp ñoo war a wari ci Italie ak li ko wër bu dul loolu rek wariwul uh, daal di ngay uh, mooy nag suñ boroom subhanahu uh, wa taala ma ki nga xamee ne nag dafa woore woon Sénégal korite gi fekk ko fii moom su boobaa su fekkee gis nañ weer wi tey dafay daal di wari suba ànd ak ñun daldi di fay nag euh, benn fan ki nga xamee ne dafa commencé woon wooram ca senegaal ñëw fii Italie ci waxtu wi suñ gisee weer wi tey dafay wori suba ànd ak ñun te daal fay nag euh, benn fan su fekkee ne gisuñu weer wi moom day ànd woor ak ñun suba bu ñu waree mu ànd ak ñun euh, wori waaye du fay benn fan ndax am na ñaar fukk ak euh, juróom-ñeent ki nga xamee nag euh, dafa commencé wor woor Italie wala Europe euh, ak li ko wër daal di dem senegal woree fa kooku dafay ànd ak waa Sénégal suba bu fekkee ne woor nañu day ànd ak ñoom moom mu daal di am nag fanweeri fan Sénégal am ñaar fukk ak juróom-ñeent bu senegaal xoolee weer wi ci seen ñaar fukk ak juróom-ñeenti gis ko moom am na fanweer ba pare bu yeewoo dafay ànd ak ñoom euh, korité su fekkee Sénégal dañoo xool weer wi gisuñu ko ñu yeewu di mottali fanweer moom nag euh, du ànd ak ñoom dafay daal di euh, wori ndax weer du mat fanweer ak benn dafay daal di wori te toog nag déglu leen ca suba sa bu demee di julli ji mu ànd ak ñoom julli ji kon kooku doon lay eh, daal di eh, def li daganul daal mooy nga jóge fii dem senegal waa Italie di wari nga ànd ak waa Italie wari te fekk Sénégal eh, wariwul wala nga nekk fii Italie di déglu Sénégal ci woor ak wari loolu daganul képp ku ko def daal ngay génn ak topp ma ne daal kon daal yal na yàlla may ñu am ay xolu gëm yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum faatimul iddata salaasina kon nag mbokk yi bu yonent bi waxee nag dégg ak topp rek su keneen waxee nag waxam lañ fay bàyyi te topp waxu yonente bi euh, sallallahu alayhi wa sallam benn arab yi dafa mas a ñëw ci yonente bi ne ko gis naa weer wi yonente bi ne ko waxal ashhadu laa ilaha illa wa anni rasulullah su dee gëm nga loolu waxal mu ne ko man gëm naa ne yàlla mooy yàlla te yow mi yàlla moo la yónni loolu mooy tekki ne kooku ab jullit la yonent bi wax Bilaal ne ko daal noddal wu yëgal gaay ne bu subaa dañuy daal di woor ibnu Umar it radiallahu anhuma ñëw ne ne yonent bi man de gis naa weer wi yonent bi ne Bilaal waxal gaay bu subaa ñëpp nañ daal wori kon ay jullit noonu la ñuy mel waaye nekk Italie di xaar Sénégal daganul nekk Sénégal di xaar Italie daganul nekk Italie di xaar keneen eh, daganul ku nekk na xool weer wi boo ko gisee nga woor boo ko gisee nga daal di eh, wori yàlla yàlla def suñu eh, dégg ak topp def ko ci yéen yàlla wan ñu dëgg bañ xam ne mooy dëgg ñu daal di koy topp wan ñu ay caaxaan bañ xam ne di caaxaan la ñu wan ko ginnaaw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki Bergamo ak li ko wër tey di talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñeent eh, ci weeru koor atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci gàddaayu yonent bi eh, sallallahu alayhi wa sallam tolloog dak eh, le 11 mai waxtu wi xëddi di yam ci Bergamo ak li ko wër mooy 4 heures 3 minutes buñ ci tegee nag fukki minute muy quatre heures treize minutes ci la ñuy julli fajar waxtu wi nga xamee ne ci la ñuy ndogu mu ci vingt heures trente cinq minutes buñ ci tegee juróomi muy vingt heures quarante minutes ci la ñuy julli timis allahumma laka sumt wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfir li ma qaddamtu wa ma axartu eh, bismillah